day def teraanga si toute l'année. jërëjëf du weeru koor. jërëjëf merci beaucoup Dieye Massamba so balaa may ñëw damay dëppwaat sama papa tuuti euh, mu yeggale fa mu nekkoon parce que instant yi je pense que euh, mën nañu revenir ci moom parce que mi ngi nekkoon ci point bu doy waar ah. ñëwal papa. non je fàtte léegi fa nga nekkoon mooy. <laughs> da ne woon da jëloon exemple ci Seydi Hadj Malick par rapport ak dox yeggale woo oustaz daal di la dagg. ne la dox ak xam-xam c'est-à-dire jàngi xam-xam foofu nga nekkoon. wallahi je ne me retrouve plus. papa bul def loolu yow tamit barke borom Touba bul def loolu yow tamit. billahi barke borom Touba. Oustaz xam nga yaa ngi may tooñ. je ne me retrouve plus. d' accord waaw d' accord yow naa ñëwaat ceeg si yow léegi père. Mhm. d' accord bàyyi point boobu. ñu ñëw ci li nga xam ne moom la euh, Prospère wax léegi. Mhm. Euh, muy jokkalante ñiy jokkalante ci koor gi muy sa Safia tey bu amee gorom. sentir ne war na koor jot mu daal di koy defal pañe ndogu defal ko enveloppe wala leneen ak leneen lu mu sentir wala tissu mhm. dem jox ko fii Sénégal boo ko defee puukare lañ koy jàppee mhm. ndax ndax prospère dégg nga li mu wax léegi mhm. euh, ki nga xam ne par exemple am na yéene wala poche am att na mu jël camion def ci denrée alimentaire ba mu fees dem yóbbul ko goroom est-ce que loolu war nañ ko cee dinga euh, man de naa dégg lu nekk nan ma traité de n'importe quoi on n'a qu'à m'appeler de tous les noms d'oiseaux mais yow soxna si nga xam ne goro moom moo la jural ki la takk indi la ci kër gi jëlale naa ak koor mais lu weesu koor loolu dafa war a sax dàkk sa diggante ak sa goro lu weesu koor laa la wax waxuma la koor dama lay digal dama ne su fekkente ne mën nga ko. Mhm. mën nga ko sax ndax ñii jàmbaar yi poos nanu ñii jàmbaar yi doole nanu amul dara fasul dara yorul dara waaye may na sox ma si jàmm mu ngi ci wetam mi ngi koy fóotal mi ngi koy baleel mi ngi koy paaseel mi ngi koy létt su tëddee opp sax balaa doomam di jóg moom mooy jóg gis naa jigéen joo xam ne fii ku ne wax maa Ibra jaañ moom moo koy denc nu koy wax Faat Diagne wallahi Baye Cheikh jaañ ñëpp mën nañ ko ne kaay lekk mu bañ waaye su ñu jëlee Faat Diagne su dawee su ñëwee du ko ne lekkal papa mu lekk su ko gisee sax bala mu ko naan lekkal mu lekk abi ca Ndéla Gueye moo koy denc soxna Ayda Diop ma nga ca kaw lax wallahi wa taala su abi taxawee lépp lu nit mënta am ci moom wala doom mënu koo am ci moom su abi ñëwee am ko ci moom loolu day rattaxal ab diggante. te abi gorom la. waa ab gorom la ba abi doomam a koy denc. Candeela Guèye moo koy denc fii Candeela Guèye moom mooy denc abi Guèye abi Guèye soxna ay da mi nga xam ne moom moo jur Candeela Guèye su ay tànkam dee metti wala dara su ñëwee. yow abi jàmmam jeex na. Mhm. baay Cheikh Diagne bu maa Ibra Diagne. jant bu Fatou Diagne ñëwee ku nekk mën na ko ne lekk du nangu waaye su Fatou Diagne ñëwee suy ñëw su koy gis sax day nekk en forme day lekk. day jóg mhm. loolu ab rattax lay doon ak complicité bu am ci diggante maanaam way dencante maanaam akub goroom mel na tey ñu dem ba tollu foo xam ne ñu ne ah, DJ Prince kat kii ab gorooma waaye moom moom moom su ñëwee xam nga rek ñoom xale yi ak seen kii seen tërëral dafa kii waaye saa yuñ ko bàyyee ci kër gi ak Prince mooy tàngalum ndox mooy dàmp ay tànkam dégg nga lépp moom moo koy indi moom moo koy lalal toujours mu ngi ci disposition góor gi. dàmp tànk kan tànk gorom. tànku prince waaw. waaw ma ne. mooy maanaam yow sa maanaam yow sa soxna mooy damp sa tànku. tànku waxuma damp de tànku prince waaw. de waxuma damp de. Ah, tàngal am ndox damp nga damp tànkam nga wax léegi. ñu ngi may accusé de ñu ngi may tuumaal de. ñu ngi koy tàngalal am ndox loolu la wax léegi. ñu ngi koy tàngalal am ndox. mais riwaayin ko nga xool damp ay tànkam la wax léegi. kon dafa jërëjëf kon yàlla baax na waaw jërëjëf jërëjëf kon yàlla tàngal ndox la wax. tey papa Arñe la jël papa waaw oui ma papa. papa euh, euh, madame Guèye madame Guèye nee na dafa bëgg nga ñëwaat tuuti ci parti bi nga doon waxtaanee Seydi Hadj Malick Momy Dany Guèye parce que moom soppeem la te foofu dafa am importance loolu dafa bëgg nga ñëwaat ci ndax sa doom la nee na suñu la ko ñu ñaan moom moo la ko ñaan. waaw ndax doon ko koo imposer ndax maam Seydi Hadj Malick si moom moo dem diggante Koung ak kaaran daal di jëli. Mhm. ba xam nga maamu Momy Guèye Dany yow mi jàngee Tiwaawoon nu mu tudd. léegi ma wax ko Père Gaaw moom ñu xam naa ne yow rek la bëgg mu ngi lay seetaan. baabu Mbenda Gueye la tudd. Babou Mbenda Gueye. waaw mi ngi jógee diggante Kung ak Kaaran maam Seydi Aj moom moo ko indi. radiyallahu taala aha waaw moom moo ko indi te waa woon. macha allah. Mhm. Babou mhm. jur Alaaji Gueye Babou Mbenda mu jur Alaaji Badou Gueye Babou Mbenda. moo jur Madiane mooy papay Njoogu Géey bu Mbenda mhm. moo jur Sooda Géey Baabu Mbenda mhm. Sooda Géey Baabu Mbenda moom moo jur mari Abrux Marie Abrux mhm. moom moo jur Ndey Wuri Ba ak Pape Moussa dëgg la de ñoo ñoo jur jaaga jaaga dëgg la de waaw maam Seydi Aj ku ne xam ne ne loolu de leer na moom dëkkul ci waawoon dëgg la dëkkul Tiwaawoon ma nga dëkk gaaya mhm. sa mbokk la waalo waalo nga moom moo wàdd ma nga dëkk gaaya moom moo waalo waalo nga moom dama koy bañ léegi xam <laughs> wax moom Mouhamed Wade waaw mais la ne noonu gaaya ak waalu benn la di parce que man maa ngi dëgg dëkk euh, njànge njaw njaw njànge Euh, nga doog ci teg ay gaayaat yu. <laughs> moom amul tukki moom amul tukki dégg. <laughs> mais ñi may waxal yéen waalo waale xam ngeen ne man mi ko ne sa mbokk nga. wax dëgg yàlla xam nga mu di ma décortiquer. Ah, déedéet déedéet ne ko waalo nga. yaa ko gën a xam sax man dama leen doon ah. nuyu waale rek waa ah. ñaangeen njaw ak càgga yaa ko gën a xam de waaw. mu jóge fa ñëw ndar. Mhm. jóge ndar daal di dellu si daal di wàcc. ñëw diggante njarne ak jéemun. Mhm. ñoo ñan ñoo fa dëkk. Mohamed njarne waaw njarne ak jéemun ñoo bokk maam njar njarne de fa la Seex Seydil Xaaji Malick Baye dama ne mhm. ñan ñoo fa dëkk dafa am xeet bu fa dëkk mhm. ñan la wan xeet la xaw ma leen apa gindi ñu njarne mhm. jéemun gàdd yàlla sin amar ñoom ñooy bokk menn maam maam Gumba Faarima Amar ak maam Paate Tagat ñooñu ñooy dar man ko yi nga xam ne ñoo daroon rasulullahi ca mbeddi Màkka ya wëlbatiku ñëw daal sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim ci mbedd yi Mbàkke yi mhm. maam Seydi Ajmali nekk fa ñu dem ba jamono mu jóge fa daal di wàcc ñëw Tiwaawoon mhm. mhm. xanaa kon kooku dox na dëgg la de am doxul dox nga piir sax ah dox piir su la neexee nga taxaw bàkku yëkkati sa loxo ne dafa gàddu ab tànkam ba màkka mhm. am déet amul dëgg ah, bi muy def màkk boobu avion wala déedéet ah boobu avion xewul Dakar ah. Marseille Alexandre Jidda boole koog di wër xam-xam waaye màkk la jëmoon waaw waaw nu mu def da ko waaw jaar xeer kon euh, kooku nan nga ne dox waaw mais doxu wuti xam-xam doxul dinaan ay teen bi mu temp tempal la ko fi père jëm tamit da ngay xaar ñun ci ban ngir nanu tënku sax bu xam ne da tooy imaam Malik moo jàngal kan. Saafiyan. Saafi. Mhm. moom la jàngal. Mhm. waaw lan moo tax Saafi dem ba mën a indi réforme maanaam ci diine ak islam indi réforme. Mhm. waaw réforme na ci lu bari. ñu ne lu tax mu mi gay dari nu ne imaam Malik moom moo jàngal Saafi waaye doonoo dem dema dem dem ba ba mu ko jàngalee pare Saafi nag dafaa jóge bàyyi fa lépp ne ñu ko gàddu ab tànkam dox. moytul ma ab doxkat moo tax mu mën a réformer lu bari ci lislaam saafi dafa dox dafa gàddu ab tànkam ñëw réformer loo xam ne te imaam Maalik da koo jàngal waaye fi mu toog jógu fii saafi dafa jàng ba pare dox tubaab yi ne j'ai beaucoup découvert surtout en matière de culture et de religion à travers le voyage loolu waxuma ko soo bëggee baax la fu mu nekk tubaab bee ko wax. voyager lépp ko. Ah. dama ko ëpp culture dox ba pare gën koo jàng tubaab. moom de. barke borom tubaab ah, nangu ko. nangu naa li tam je m'exprime en français à merveille. Ah, man xam-xam àllaaxira nangu naa ko. mais moom nga lool àdduna lay wër man xam-xam dëkk laa koy fekk. Hmm. wax ko fa loo xam ne ndax xam nga saaku ñaam bi. saaku ñaam bi déedéet. laaj ko sëb sëriñ. ci. ah <laughs> ma yaakaar na sëñ Moustapha mooy sa sëriñ. waaw dëgg la de sëñ Mansour si Jamil. waaw waaw da koy laaj ne kan mooy saaku ba saaku ñaam bi kan la jamonoon ci xalifa yi kan la jamonoon moom lan la woon saaku ñaam bi. ak taalibe boo xam ne lu nekk la ko tarixa bi jaraloon. ndeysaan saaku ñaam bi. waaw saaku ñaam bi. ndeysaan. mi ngi dëkkoon Kër Njobbo. Kër Njobbo waaw ca Tiwaawan. waaw Kër Njobbo. ak da ngay génn Tiwaawan romb asalem fa Ablaye Ndiaye dëkk. moo nekkoon chef serifu kii chef chauffeur Taïba mooy asalem ga. Mhm. nga romb Bignona ga. romb usine Aline Mbaye Paala ba. Oh. daal di wuti kër Ndiobbo. dëgg la de xam-xam. foofooy kër Ndiobbo. nga laajte na leen kañ la génn àdduna ak nan la génnee àdduna. moom saaku ñaam bi waaw saaku ñaam bi moo daan yenu ab saaku gàcc ko ci aw loosam daw yéeg ak moom ci jumaa ji ndeysaan ndax bari doole moom saaku ñaam bi waaw saaku ñaam bi mhm. dama rek nga laajte ko na mu génnee àdduna nag duma la ko wax dafa génn àdduna na mu génnee àdduna kooku duma la ko wax moo tax dox dafa am solo mhm. moom saaku ñaam soo demee ba guumun faal mhm. wala nga dem ba tooro wala nga dem ba kër Cheikh Marouba bopp yëpp wëral nga ne leen per mbay Ngoné nu na la bako compus da naan compus ndax sama maam foofu la génne adduna damer sàmbalaw bi xula jëmboo jàll ñu ngi xeexee foofu wàcc jaar kër njobba wiiri jaar guumun faal jéggi raay ba ña nga xeexee ca ndukkumaan ndukkumaan mi nga foofu ca ginnaaw ti waawoon am naa ndukkumaan bu baax man bëggoon naa xam dëkk yooyu loo fa doon def jamono jooju macha allah wëndeelu dox rek waaw. ut xam-xam dox rek waaw dox. pour ut xam-xam dox rek. macha allah sëñ Touba ko wax mu ne góor day wëndeelu. comme su téléphone quoi. sëñ Touba waxul loolu. wëndeelu day am lu mu àndal di góor góor day wëndeelu. am lu mu àndal sëñ Touba newul xam-xam jar na sol saw dàll. waaw di dox ko dox ba Chine. waaw moo tax dëkk ba mu tudd moo gën a naat ci réew yi tey Chine fan moo ko gën a naat. tudd ba ko sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim tudd moom moo tax. wallaay dëgg la. dox góor day wëndeelu. tu es le meilleur. góor day wëndeelu. Oh. wëndeelu gu ànd ak njariñ man de. wëndeelu kat père mënoo wëndeelu dëkk boo dem ndékki añ reer jug ni leen maa ngi dem. waaw amoon na ab euh, kii amoon na de ab euh, waajoo xam ne dafa jóg dem sàkku ji xam-xam. dem toog waxuma la dem gàddu ab tànkam de. Mhm. toog akum sëriñ mu koy wax muy bind di ko wax muy bind di ko wax muy bind ba bind loo xam ne toll na kaamir lépp xam-xam la. moo wàññeeku ne maa ngi ñibbisi ñëw ba ci teen daal di mara naan bi mu maree naan jël téere bi mu yor nga xam ne ci la bind xam-xam bi mu yoroon lépp daal di koy dénk koo xam ne nee nanu ab dof ñoom ñoo ko tuddee ab dof waaw xel ma neexul mu téyel ko mu taxaw ci pindu teen bi jukki génnee daal di xelli naan ba laata muy naan bay sutal waa ji jël téere ba daal di koy xooj ci biir baaj bi mu tourné ne ko ana téere ba mu ne ko mi ngi nii ma xooj ci biir rek mu fëgg gémmiñam mu ne ko looy fëgg sa gémmiñ lu ne woon ci téere bi mu ne lu ma ma sax xam ci këru àdduna mi ngi ci téere bi ci laa ko bindoon nga jël ko ëlbati ko daal koy tënk xooj ko ci biir ndox mi dof ma ne ko demal wutiwaat xam-xam xam-xam du nekk ci téere fii lay ne dëgg la boole kook jàng jërëjëf Sall jërëjëf mu ne boole koog jàng waaye jàng jeng am na. dëgg sa diggante ak sa traay bàmmeel gisoo benn koo xam ne nee nanu kii alxuraan mi ngi cib dënnam ba pare ci jamono ji mu defub safaan ba nu koy bind wala nu koy publier. du jeex. wala gisoo ko. waaw moo tax jàng baax na mais jàng jeng am na. xam-xam du ci gis nga jàngkat bi. xam nga nu mu mel. nafar mbindum jàmbur. di nga jàng benn poème ba pare ñu bind ca suuf d' après Alfred de Musset. wala d'après Alfred de Vigny wala d'après Victor Hugo. donc da ngay nafar mbindum jàmbur ngay nafar. mais mais Momo dama donc koy signé. Momo Khadija waaw. Khadija mbindum jàmbur ngay nafar. te nee na lu képp kuy nafar mbindum jàmbur di nga mën a. Khadija Khadija. nee na lu na lu képp kuy nafar. mbindum jàmbur a gàtt nee na nu sulu gàggee ba xam-xam réer. ba xam-xam ba du seet fu nu mën a seet ci këru àdduna mun na ko am nee na doon naan wëri leen ki doxi woon gàtt tribunal sax boromu a eh, tribunal ndax kii dafa naan jàng naa kii na la gis naa man gis naa laa koy wax moom daf ma naan yër naa nee na tiktok araam na nee na tiktok araam na dama lay laaj rek tiktok araam na yaa ko wax war naa ko dégg waaw ci jigéen ji am jëkkër waxuma loolu TikTok araam na léegi photo nag. règle boo gis am na exception. dama laaj dama ne TikTok araam na léegi photo laa koy laaj ak audiovisuel. ma ne la règle mais TikTok c'est audiovisuel. c'est vrai man gis naa lu TikTok loo xam ne dama koo sauvegarder téye ko ci maam Seydi Hadj Malick. mais déggoo li ma la gis naa lu TikTok loo xam ne ci seen Tuubaa Cheikh Ahmadou Khadim dama ko téye waaw ma ne TikTok bi mu ne araam na te TikTok loo xam ne njariñ la. Eh. ndax xam-xam bu rëy la boo xam ne. doonoo génne maam seeni arrangement bi ba pare xale TikTok daal di ko ci teg ah. benn benn baat rek laa lay ñaan. benn rek laa lay ñaan TikTok na génneel ma masala. ci lan. masala ci TikTok araam na alxuraan laa lay indil. waaw masala. alxuraan laa lay indil ndax say wax la. wala wax yàlla la waxu yàlla daan na ba tollu foo xam ne yonent bi daan na wax ba sutal ba sutal Seydina Omar ne ko say wax la wala waxi yàlla la fan la ko wax masala waxar na fi buy masala wala tabaruñ na del te kii del wax di firi yàlla nee na waxar na sax leen yéen jigéen ñi mhm. fii buyutiku na ci seen kër yi jigéen la ko beral jigéen la ko beral ma yaakaar ne lu araam ci jigéen war naa araam. Ah? lu araam ci waxuma la TikTok araam lu tuuti. yaa ma ah déggoo jigéen ñi laay suivre. nee TikTok araam na. masala laa laaj. Khadija weddi wu de. jigéen juy sëy laa ko wax. masala laa koy laaj. jigéen juy sëy. ci laa ko wax ah déedéet leeralu ko de ah, TikTok araam na rek la wax. Eh, TikTok araam na. wala TikTok araam la wax. man de moom laa dégg. nit di julli juum ñu ni nañ xool ki doxi mu ñëw di ko corriger nga ne allahu akbar jaar naa ndut jaar naa tiwaaw bar bañ a tari <laughs> ah, du foofu day soo demee foofu day <laughs> waay bul tari dëkk yi nga <laughs> bokkul ah bokkul bokkul barki démb Njaay dafa wax loo xam ne ci ko yor soxna su ma duggee tiwaawoon ñëpp doon yuy riir ñu bari daw wër ma ñii di jooy ñii di def lu ne ñii di waaw yow yaa ne doon lay accolade ba sa mbubu day yàq ak oh, rosa ak rosa ah barke ya waxoo yow waxu la loolu waxoo ne doon lay ak kii waxoo ne sa yére day yàq ak rosa ilaha illah yow boo ko ne sa yére day yàqu ak rosa. ci quoi ci quoi ci non non kii wàcc naa ci marseem tey tey tey laa wàcc ci marseem jeex na. su fekkente ne waxu ko yàlla bu ma am ci seen tuuba dara. nee na nee na yére day yàqu ak rosa. léegi sobi rosa bu daanelee man ma wax sama. ak xalaat dagan na. waaw ci jëkkëri jàmbur ak. ak soxna léegi moom bu ma wax Sofia bi damaa dox de. dox waaw li nga dox indi finition yi boo pare. waaw. wallaay su ko waxul moomoo yàlla bu ma gisee ak borom Tuuba. wallaay ma ko wax barki de moomoo du ma fen. loo wax am wallaay sa baay bii du fen. loo wax taxaw na ma waa day way bis bu nekk. mu taxaw na ma sa doom jàngi way bis bu nekk. te tere woo ko way lu nekk nga koy wax. waaye xool ngeen yéen tamit. déedéet. ah li mu wax. soo ko toppee di ko xool. sama doom jàngi way te tere woo ko. Mm. te sama doom ji way mu fecc ko. Mm. dëgg la dëgg ko mu fecc. dëgg la dëgg la Cheikh ko mu fecc. papa nekk lebal nga ku mën fay de Cheikh Cissé waru fee jóg day ñëwaat. lebal nga ku mën a fay ndax mar Cheikh Cissé laa soxla. lebal nga ku mën fay dama ne dafa war a ñëw. ndax dafa war di def ay ay conneries. lebal nga ku mën a fay la bu ne di ci jàng nu koy corriger. Ah? ban la fee coon barke borom Touba Cheikh Cissé gis naa ko mu fecc. man maa la xaw en tout cas lu waali way fecc na ko. lu waali way lu waali way rek fecc na ko moom Cheikh Cissé Cheikh Cissé maa la gis nga fecc nga ne sama doom dinaa ko tere woy waaye li muy way yaa ngi koy fekk yow mi alxuraan fees sëb dënn. ah loolu naa ko. Ah? mi alxuraan fees sëb dënn. lu waali way yaa ngi koy fekk. <laughs> ah maa xool Fall waaw. waaw baax na waaw. waaw <laughs> d'accord waaw. def naa nii waaw <laughs> euh, ko. Euh,